situation wu bésu tey bi tey samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin deux mille vingt ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat wu examen yi ñu doon def ci junne ak juróom-ñeent test yi ñu def ñaar fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon nag am jàngoro ji loolu mooy dikk ne téeméer bu nekk boo jël fukki ñoo ci positif lim boobu juróom-ñett fukk yi ak ñeent ñoo ci nekk ay cas contact ñaar fukk ak benn ñoo ci nekk cas communautaire cas communautaire yooyu ñu ngi nekk ci Rufisque juróom mbaaw ñaar Fatick ñaar Médina benn Géejawaay benn Mbour benn Pikine benn Patte d'Oie benn Kër Saint-Louis benn Liberté 6 benn Ouakam benn Cambérène benn Yarax benn Mamel benn juróom benn fukk patient ak ñaar wér nañ ci bésu tey bi am nañ ci suñu service su réanimation ñaar fukki cas ak juróom benn yoo xamante ne mën nañ wax ne ay cas grave lañ ñeenti patient génn nañ ci àdduna ci bésu démb bi bu ñu jàppee ne ba ñu démarré ba léegi mën nañ jàpp ne juróom benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeenti cas moom lañ déclaré Sénégal ci boobu ñeenti junne yi ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom yi wér nañ téeméer ak ñaar yi génn nañu àdduna bon donc mën nañu wax ne ñi nekk ci paj fi ñu toll ak génn toll nañ ci ñaari junne ak téeméer ak benn ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demandé képp koo xamante ne sénégalais ak sénégalais wala nga nekk ci réew mi di fi dund na nga respecté bu baax a baax lépp lu leen digal ci wàllu prévention individuelle ak collective ñu ngi leen di remercier.